asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokk yi maa leen nu di leen ziar bu baax di la wax ne tey moom li ma leen andil lenn la rek mooy xam nga nit ñi à chaque fois dañuy am si ñun yaakaar di ñu sant ay mbir pour ñu defal leen ko am na si ñoo xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw mbir yi day xaw a si ñoom ak weeru gàmm bi ñu nekk nii xam nga doomu aadama bi def lu baax moom da ko war a def tous les jours waaye nag xam nga àddina dañ ñaan lépp loo gis rek. ay waxtaan la lépp loo gis rek ay dimbalante la ma xalaat daal ne comme ñu ngi si weeru gàmbu nii daal nañ jéem a fexe daal nu ñu defee ba jéem a dimbale nit ñi ñi nga xam ne ñu ngi bëgg si jaaro yi yenn saa ma xaw a cher eh, lépp loo xam ne daal maa ko doon def rek dama koy xaaj si digg bi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ngeen mën see juróñoo ñu mën see juróñoo moo xam seen wàllu kaaraange seen wàllu wërsëg bu yaatu waaw ah, ngeen baal ma si appel boobu moo xam seen wàllu wërsëg seen wàllu kaaraange ak tam ñi nga xam ne dañuy bëgg lu leen jubale ak seen ay jëkkër rek yu demee noonu loolu yëpp daal fa yéene naa si fii daal ba gàmm gi di jeex incha allah eh, lu waaye rek eh, am yaakaar si man ma xool ne ma ne ni ñuy dimbalante si loolu incha allahu rabbi ndax eh, fi mu nekk nii moom sama yaram day daw yenn saa yu bari ndax wax naa leen ko man daanaka du sax. pour wàllu sëriñ wala dara man wootewuma sëriñ du ma sëriñ du ma dara waaye nag bu la nit yaakaaree ñëw ne dama laa yaakaar bëgg nga defal ma te am na yu si bëri yoo xam ne daanaka ay bind yii nii da dem di kii ko yu si bëri man fas yéene naa incha allahu rabbi def ci sax sama doole bu matut ma jëm a fexe nu may dimbalante nit ñi ndax nit bu la yaakaaree rek yaakaar dafa foor dégg nga yéen a ngi may topp si YouTube bi di ma seetaan di ma encourager si lu bari kon nag yoon la pour ma ñëw dimbalante ay yéen si côté boobu noonu kenn képp ku am soxla rek na ma ko wax lépp lu ma doon defee fokk daal juróom laa koy defee lu ma doon defee juróom incha allahu rabbi ma def ko ñaar bu soobee yàlla kon jërë ngeen jëf maa leen di ñaanal di ñaan itam ngeen ñaanal ma jazakallah xeyran asalaamaaleykum wa rahmatullah